daa ko wax di yàgg naa ko wax di ngeen am da nga am taw taw fexe rek ko am ñoom ñu nekk nekk si dëgg ci xas yi xaas am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne taw te ci fàggu waaye nag am waxuma taw feex taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa am waaye yéen xaas ngeen am barixtu min xoyoobi nafsi biltija ilallasi abwaabuhu lan turtaja huwa alkarimu alakramu almukarrimu waliya minhu la yarimu alkarramu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu baaxoo di ñu topp ci seen xasida minanul baaxil xadim noo ngi del ci waat ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala di ànd ak yéen ak ni ko mbokki taalib yi bëggee te sakoo ci ñun démb ñi daanee woon ci baraani min kulli aybin wa maral wa xaadali sixatta fi kulli xaral bu sëñ Tuubaa doon waxee ne yow yàlla seetal nga ma ci gépp ayib te mooy ayib yi nga xam ne ñooy nekk ci bakkan waaye seetal nga ma ci gépp tawat te mooy tawat yi nga xam ne ñooy nekk ci xool waaye matal nga ma ak wér ci bépp xemamteef nañ ko jàngale woon démb rek ay xemamteefam da koy tuddee ay tawat moo xam lu muy ñaan boromam la moo xam lu mu mbébét la ci yàlla lum ci mën a doon rek da koy tuddee ak tawat bu ko amee nag mooy tudd xemamteefam bu ko amee nag mooy tekki euh, la la taxoon mu tawat maanaam fu ne am na ko nag ci boromam léegi nag wér na kàkk kon du ci jublu tawat yi nga xam ne mooy dal bindee fi mooy tawat yi nga xam ne dañoo doxa dal doomu aadama bi te doomu aadama dañ ko bind ci doxat yi ak yàkkamti mu ne kon suñu borom seetal na ma ci bépp ayib muy ayibu bakkan yi wa maral ak ak gépp ak euh, tabarka la tawat te muy tawtu xol yi waaye suñu borom wommatal na ma ak wér ci gépp tamam teef gu man a doon rek lu ma bëgg rek suñu borom wommatal na ma ci ak wér te bu ko amee rek tabarka la nam ko bëggee noonu rek la koy amee tey ñu war dalee ci barixtu min uyubi nafsi biltija ila lasi abwaabuhu lan turtaja ba léegi rek sëriñ bi ne barixtu setal nga yow yàlla barixtu setal nga wicc mooy dëñal nga barixtu mooy dëñal nga min uyubi nafsi sama ayibu bakkan barixtu dëñ na ba set wicc min uyubi nafsi sama ayibu bakkan bakkan lu ko dëñal mu ne bilti jaa ci wiidu gu ma wiidu ilal la si jëm ci buur ba nga xam ne abwaa boxoo mboolem buntam yépp jam la lantur tajaa diisu leen mosa tëj lantur tajaa diisul tëju mukk laahu akbar nee set naa wicc maanaam dindeeku na ba set wicc barixtu waaw dindeeku na ba set wit ci sama ayib bakkan yépp tabarkala ayib yi dal bakkan yépp nga xam ne mooy ayib yi gën a garaaw ci nit ki ndax bakkan moo yóbbee nit ki bëgg alal poñet poñete adduna yépp bakkan ko yóbbee nit ki moo tax yàlla ne xadda aflaha man sakaha te xëy na dëgg-dëgg texe ku sellal bakkanam waaye nag waxat xaaba man dasaaha ki tilimal bakkanam kooku mooy ku perte dëgg dëgg dëgg ndax fa alhamaha fujuraha ñun yàlla ñoo yenkewal jengam ga ak ragal yàllam ga kon bakkan léeg-léeg mooy dugal cër yi ci musiba mu ne gannaaw ba nga xamee ne làmmañ moo leen jiitu ci lépp waaye bakkan nag moom tabarikalla li ci ëpp moo ko yóbbi nit ki moo ci yóbbu doomu aadama bi moo tax nit ki bi ko yàlla bindee da ko bàyyeeg bakkanam léegi nag bakkanam day booy fu ko neex dem bu fekkee nga boo sa bakkan nag bakkan bi day bëri ayib ayib yëpp dañ cee dajee waaye boo sàmmee sa bakkan rek mën ngaa mucc ci mboolem cër yi moo tax suñ tubaab ne barixtu set na wicc mooy dëñ na ba set wicc min oyo bi nafs yi sama ayibu bakkan lu ko dëñal bil tijaa ci wiidu gu ma wiidu ilal la sii jëm ci buur ba nga xam ne abwaabu ay buntam yëpp ay buntu xéwalam yëpp buntu yi nga xam ne ay jaamam danañ ko jaar di ko ñaan wala ñi di ko jaamu buntu yooyu yëpp nee na lan pour tojaab ba yàlla di leem suuf ba yàlla di coupé jant bi ba yàlla di coupé weer ba yàlla di fàq biddiw yi nee na lan pour tojaa deesu leen tëj mukk lan la jëfandikoo jëfandikoo tam maanaam lam ndax jarut ko jarut mu indi baatab lam ndax lan rek dafay wane rek maanaam yàlla ay buntam duñ mos a tëju ndax ni rab bii wa baabullahi lam jëkko mu tojaa te booy xool mboolem yonent yi yonent yi yàlla yónni yëpp bi leen di tagg ci sóoratul surtout yàqati ni te muy surtout saafaat yi bu yeggee ci yonent yi da ngay dégg mu ne ina kasaalika najsil muxsinina bu nekk la yonent yi fan jaaroon ak li leen yàlla defal bañ muñee te sant yàlla dana yàlla pay gim leen pay bu ko lee ba noppi da ngay dégg mu ne ina kasaalika najsil muxsinina ñun yàlla nii la ñuy payee képp ko rafetal kon la yonent yi amoon ba léegi ku ko liggéey am la yonent yi amoon sax wala ñuy fayra la kawe la yonent yi amoon ndax sëñ Tuubaa xam ngeen ko kon nag loolu li dafa mat a bàyyi xel sëñ Tuubaa mu ngi jàngal buntu yàlla yi amul benn boo xam ne tëju na ci kon nag ngeen ne sama bakkan seet na ci bépp ayib la ko seetal nag mooy wéedu gu ma wéedu sama borom li nga xam ne ay buntam tabarika la ku ci wéedu rek mu ubbil la ndax ay buntam de duñ mos a tëju te benn tëju ci muy feddali koog nag di ko tagg te mooy yàlla di ko tagg di ko bàkk di ko kañ waaye nag boole ko di sant mu ne hoo moom yàlla kooku ma leen di wax al karimu mooy aji tabe ji al akramu mooy aji tedd ji al mukarimu mooy aji la ji kërim gu njag gi tedd la ñaari yëpp tedd lay tedd nga lay tekki waaye comme ñaar la te lu tasuuf dañuy bañ ne al akramu ki gën a tedd ndax kon dafa mel ni yàlla day am ku muy xëccantoog ci tedd nga te loolu amul moo tax benn bi ndax kërim ci yàlla dañ koy firee maanaam ku tabe koo xam ne bu ko ab jaamam ñaanut sax day xam ne jaam bii kat aajoona dara mu envoyé ko ay xéewal mu di ci bëgg ci bànneexu ndax inna rabbi xaniyun karimun karim bu ñu ko waxee ci mooy koo xam ne dafa tab nga xam ne ñëpp lay xéwalee huwa moom yàlla al karimu mooy aji tabe ji al akramu mooy aji tedd ji al mukarimu mooy aji terale ji nga xam ne kooku mooy ismu faanel ji waaye nag walaa yërimu du dëñ mukk ko min hu du bàyyeekoo ca yàlla liya di ma ñeel alkaramu tiraanga yi allahu akbar bay bu yéme la nag nee na tiraanga yàlla du dañ mukk di bàyyi ko ci yàlla di ma di ma ñëwal loolu boo ko xoolee ba léegi sax loolu day faral di am li waral fu ne lépp ndax xéewal yëpp ñu ngi sëñ Tuubaa waaye li ko waral yëpp nga xam ne li ci bëri nit ñi teg buñ ci seen bët mooy mooy yàlla gu bëri gi rek mooy yàlla gu bëri gi képp moo tax euh, xéewal yi wàccuñ xéewal yi bindee fi gisuñu leen waaye bu saa yoo xam ne mooy yàlla gi wàññi nañ ko wala bàyyi nañ ko rek Sénégal du ñàkk dara ndax am nañ lépp waaye nag tabaarikalla seen xéwal yi dañ leen réer lu Omar ibnu Xattaab daan wax rek wa ay su yoojudul maau yoojudul maalu wa ay su yoojudul maalu yoojudul fitna nee na réew de bu amee ndox rek tabaarikalla koom-koom bëri fu muy alal waaye alal fu mu bëri rek fitna rek moo fay bëri léegi nag fitna goog ci lañ toll ba nit ñi fu ne si xeeti bàkkaar bu ne kenn ku nekk boo xëyee yaay njëkkalante def bàkkaar ak noo ko mën a defee rek tabaarikalla moo tax loolu yépp tabaarikalla waaye Sëñ Tuubaa xéwal yépp mi ngi ci moom waaye li tax mënuñuy gis xéwal yu bëri te yeeyoon nañ ko naxam waaye moo yàlla gu bëri rek moo tax xéwali wàcc mi kon nag mu ne walaa yërimu du dañ mukk li di ma ñeel min du bàyyi ko ci yàlla alkarimu tiraange yi mboolem tiraange yi rek duñ dañ mukk di bàyyi ko ci yàlla di ma ñëwal nga loolu wax ju kaw a kawe la muhammadun kon mu jàll ci yonent bi melal na yàlla léegi nag kon mu jàll ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na muhammadun muhammad wasilati mooy sama sëriñ wasilati mooy sama wasila wa junnati mooy sama pakk xànku li soo in walis lépp lu ñaaw maanaam moo dox sama digganteeg lépp lu ñaaw rek waaye nag waa asan ak lor wa jannati waaye nag mooy sama aljana nee na muhammad mooy sama wasila wasila mooy ki dox sa diggante digganteeg yàlla kooku waxoon na ko ci Hamad Souleymane nee na asnal wasaa'iti turan wal wasilaati nee na yonent bi mooy ki gën a kawe ci mboolem ñi nga xam ne dañuy dox diggante nit ki ak yàlla yonent bi mooy gën a kawe ci mboolem al it yi yépp ak wasila yëpp yonent bi salaay salaam mooy ki ci a kawe moo tax ma ne yonent boobu ma leen di wax Muhammad nga xam ne turam ca dëgg-dëgg mooy Muhammad kooku mooy sama sëriñ ndax baana li kulli man lahu manqoolu an na wasilati wa rasul nee na leer na nañ ci képp ko am xel ne sama sëriñ daal ci dëgg-dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mooy sama pakk pakk mooy défenseur mooy défense loolu ñuy football sax xam nañ ko mooy défense mooy ñiy taxaw ci camp yi tabarkalla Euh, bal bi ñëw rek ñi attaque ñi attaque mu dellu loolu mooy défense ndeysaan nee na yonent bi nag mooy sama défense man mooy sama mooy sama pakk ci lépp lu ñaaw maanaam mooy dox sama diggante lépp lu ñaaw waaye mooy dox sama diggante ak lépp loo xam ne lor la moo xam lor luy bàyyeekoo ci làmmiñu mi def yi wala luy bàyyeekoo ci seen loxo ya lépp yonent bi sallallahu wa sallam mooy dox sama diggante ak loolu wa junnati mooy sama pakk an ku du sooy walis lépp lu ñaaw wa asan ak i lor waaye nag wa jannati mooy sama aljana aljana nag nee na sama aljana moom li ma mën a dund ba yëg na maa ngi koy dund loolu daal mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mooy tagg yonent bi mooy sama aljana ndax muhammadun sikruhu unsi wa mafraati wa nooru xalbi wa axdaay wa raaxati nee na yonent bi tudd aw turam mooy li may wéttali waaye nag mooy sama mbégte mooy sama leeru xol di leeru sama cër waaye nag di sama naflaay comme nii léeg-léeg nga dégg diw mu ne man de diw mooy sama aljana léeg-léeg sax ci jigéen ñi la gën a bëree léeg-léeg nga toog ba yàgg dégg ku ne la man de diw mooy kii mooy sama aljana nangam nangam tabarkalla sëñ tubaa nag nee man moom yonent bi rek mooy sama aljana yonent bi rek moom lay bànneexu moom lay bégee mooy sama lépp tubarkalla moo tax mu ne wa junnati mooy sama pakk an ko lu sooyn walis lépp lu ñaaw wa asan ak lor wa jinnati mooy sama aljana nee na yan xaadu minniya salaamun han salah lahu bi alihi wa afdalil malah nee na yan xaadu dana wommatu minniya bàyyi ko ci salaamun dollik wóolu han salah maanaam ànd dollik xewal lahu ñeel bi waaye nag moo ki waa këram wa afdali mala ak ngën ca mbooloom ma te mooy malawul axla malaikaam ya tabarikalla ñi nga xam ne ñooy almuqarraboona tabarikalla ay ñi nga xam ne ñooy yonentu ya waaye nag tabarikalla ak ñi nga xam ne ñoo ca topp ñoo ca topp ñoo ca topp noonu ko koy toppee ba ci abdal ya xutba yëpp tabarikalla loolu mooy malawul axla mu ne yan xaadu dana wommoto mi ne bàyyi ko ci man salaa mun dolli wóolu an salaa walis dolli teral loxoo ñeel yonente bi bi ali mosu waa këram wa afdalil mala a gën ca mbooloo ma tamuy malul axlaa nee na kon salaatu salaam daal fu mu toll rek day wommatu di bàyyi ko ci man ma di ko def di ko julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam nag waaye duma ma ko yemele ci yonent bi waaye nag dama ci xaatal ay sahabaam waaye dama jee xaatal waa këram waaye nag dama ci xaatal mboolem ñi nga xam ne ñooy malul axlaa tabarikala ñëpp dañ cee bokk tabarikala rasuluna ahmadu kulli ahla alladhi xayru salawatil ahla mu ne rasuluna sunu yonent bi ahmadu mooy ahmad nee kii ñu am kii nga xam ne mboolem yonent yi yonent bu fi jaar bégalee nga say nit ne dana am ab yonent buy mujjee ñëw bu ñëwee ni ngeen ko gëm nee na sunu yonent bi nag ahmadu ahmad la nee na axlaa kawel na nag ku kulli sama lépp sama lépp yonent baa ko yëkkati kawel ko man kenn mënu maa kenn mënu maa daaneel darajati taxlu sama daraja day kawe rek gis nga taxloo day kawe maanaam taxloo mooy loo xam ne day kawe rek te du féetee suuf mukk darajati taxloo walaysa tanxasil wa man naa min alwara qad yuqutit nee na képp ku ma bëgg a suufeel sax suñu borom moo lay gotti suufeel la a yëkkatiku ndax képp kuy jéem a ngir bëgg sama suufe rek nee na suñu borom moo lay suufee doo mos a yëkkatiku da ngay daanu te ñëpp dañ lay bodde tabarikal a ne rasul naa suñu yonent bi nag ahmadu mooy ahmad anla kawel na kulli sama lépp mu ne yàlla doon leen nekk ci yonent bi te mooy ahmad xayru salawaati ngën ci julli ya gën a kawe mu ne sama yonent bi ahmad mooy ahmad te mooy yonent bi mooy ki kawel sama lépp mu dal di julli ci moom ne yàlla nekk ci yonent bi ngën ci julli yi gën a kawe julli yi gën a kawe rek yàlla na ko suñ borom sotti ci kaw yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne alayhi yàlla nekk ci yonent bi xayru salawaati ngën ci julli yi al ahla ya gën kawe sëriñ sintu lahoo ab kaara am daaxin la man jaxiloo sax nii wa safal xaladaa mu ne sintu defar naa bam mu jekk sintu taaral naa sintu jekkal naa sintu taaral naa loxo ñel yonent bi lan abu kaara ay njegemaari am daaxin yoo xam ne ay tagg lañ nekk abkaara ay xeej yoo xam ne am daahin ay tagg la ma taaral ko bam jekk tabarka la xam ne bu doon dag naan ab jëmm la ma solol ko mbubu so rafet taggatee ko nee na damaa nag taaral nag ay xeeju tagg xeej mooy ay njegamaare rek waaye mooy xeej xeej mooy ndaw soo xam ne kenn laalagut ko kenn ñamagut ko maanaam benn góor joteegut ak genn góor kooku la ñuy wax kaar moo tax jigéeni aljana yi dañ leen di tuddee ay abbukaar alxuraan yi dafa jaaxal naahu na abbukaaran ruban atraban ñoom kat sunu borom da leen def ñu doon ñoo xam ne dañuy sopp seen jëkkër yi waaye nekk ay maas ñii ne fukki at ak juróom-ñett la am ñii ne fukki at ñett lañuy am waaye lu ci mëntu ko am daal ñoom ñëpp dañuy soppante ndax sëñ Tuubaa wax na ko sax ci xasidaam gee ne ñoom duñu dañu mukk xonsaaraa xendahum abadan akrim bihinna qarindatin safiyaate nee na ay xeet la ñuy nekk waaye nag doon ñoo xam ne la euh, dañuy soppante waaye nag doon ñoo xam ne ay tànneef lañ waaye doon ñoo xam ne ñu sell sell la ñoom la ñu nekk ndax du ñu gis euh, deret du ñu gis du ñuy mbërët tabarikalla yooyu yëpp du leen dal ñoom waaye li waral mu indi ko noonu tuddee tag yi xeet mooy xam nga jigéen goo xam ne kenn laalagut ko léegi dafa bëgg wax ne tagg yoo xam ne ci moom rek lañ koy gisee maanaam duñ ko gisee ci keneen ku dul moom moom moo koy njëkk a def tagg yoo xam ne ku ko liir ak lum tuuti tuuti ku ko ku ci def tadabur da nga xam ne ki bind lii maanaam moom képp la moom rek ay tagg yi ni yonent bi moom rek ko sañ moom rek a mën a tagg yi ni yonent bi salaay salaam loolu moo tax mu tuddee ko ab kaar da koy ab rek ngir xam nga li neex dañ koy nirooloog lem léegi léeg sax mu ne fariha xayral mursali bi xattiyal muhsali sama bind dafay bégloo yonent bi waaye nag dafa neex ba mel ni lem xam nga lem lu neex moo tax ñu koy niroole ak bind lu demee ni buñ ne tab arab yi dañ seen bind dañ koy niroole géej maanaam buñ ne tab dañ naan diw dafa tab ba mel ni géej nga xam ne loolu dañ koy abbu istihaara la lu demee ni abbu kaar kuy tagg ku demee ni suñ tubaab bëri na ci xasidaan yi di wane ne taaral naa ba mu jekk ma solal ko mbubu ay njegemaari tagg ay xëeji tagg nga xam ne day abbu ab kaa istiaara da koy abbu rek mais du ko tuddee tagg di waneen tagg yoo xam ne daal ci moom rek lañ koy gis ndax da koy niroo la xeet mooy jigéen koo xam ne kenn masugut ko laal mooy moo tax mu ne sintu taaral naa loo ñël yonent bi abbu kaara ay njegemaari abbu kaara ay xeeju am daaxin ay tagg fan la ko taarale mu ne la daa man fa ña nga xam ne jaxiloo réeree nañ zax nii sama mbir waaye nag wasafaa sellal sellal na alxaladaa bél ga sell na alxaladaa bél ga sëñ tubaa li lay xamal ne dafa yéeme taggam yi taggam yi sax booy xool tagg yi dëgg-dëgg yam def ci biit noon ya moo gën a rafet yam defut ca biit noon ya loolu boo koy xool ci xasida yi loolu mu lay njëkk yéem moo tax mu ne taaral naa ay xëy ji tagg yoo xam ne maa ngi ko defee fa ñi nga xam ne dañoo réeré suma mbir te mooy tubaab yi ma jàppoon ba noppi nag tabarkalla di ma yóbbu euh, ca géej ga te dañoo réeré suma mbir jàpp ne damay ak yu nu mel te mu leeral yépp ci xasida ak yaa jumlatan wan leen ne leen lii mooy sama objectif lii moom a tax a jóg lii lay def moo xam alxuraan wala ak addis yonent bi salaay salaam yii rek moo ma tax a jóg waaye nag yéen li ngeen jàpp ne moom moom moo ma tax a jóg tikk ay ngàndaay comme ni ngeen ko baaxoo xam ay jaasit ay fetal yooyu yëpp ngeen di ko def comme ni ngeen koy defee yéen déedéet man defee ma ko moom ndax man inni ujaahidu bil ulum wa bi tuqaa habdan qadiman wal muhaymin moo damay jihaat ci science te mooy xam-xam yi moo xam xam-xam bu mën a doon nag waaye nag ak ragal yàlla mooy di def digli bàyyi tere yi waaye nag doon al abdul qadim te yàlla jàkkaarloo na yàlla jàkkaarloo na lépp di ko seede la moo tax mu ne taaral naa ay tagg yoo xam ne ay xeeji tagg lañ nekk mooy ci man rek lañ ko gisee waaye nag ma def ko ñi nga ma def ko fa nga xam ne dañoo réeri samay mbir te mooy tubaab yi ma yóbbu woon la jàpp ne damay xareek ñoom ñi nga xam ne dañoo réeri samay mbir ba tax ñu yóbbu ma fa nee ne taaral naa fa ay tagg yoo xam ne yu taaru taar lañ xoolal ko ci di rek yi nga xam ne dañoo da Sëñ Tuubaa da ko bind ci biit noonu yi nuñ taaroo ak nuñ rafetee moo tax mu ne la daa man fañ nga xam ne jeexiloo réeree nañ sax ni samay biir na xam xamuñ ma waaye man jiyaat ak ngàndaay yi taxuñ may jot taxuñ may jot waaye nag war safaa sellal na sax alxala daa béel ga tabarikal mu ne xal bi sama xol safaa sell na set na wicc sell na ngir lan di kaw nit ci nekk lu nekk lu rabbi sama borom maanaam sama borom nekk gi ma nekkal xil lii bi sama xarit ci biis di sama soppe wa jaala ta mu def moom yàlla lii ñeel ma xul lii sama lu néew lu ne ku soran mu def ko nag léegi mu doon lu bari bari nga xam ne amul yema kay mu ne sama xol sell na wicc na wicc ngir lan ah nekk gi ma yàlla nekkal waaye njëkk yàlla di nekkal sëriñ bi sëriñ bi da ko nekkaloo te xam ngeen mbokk yi xarit bu ne la ñuy séntu moom boo dégg ñu naan diw diw dañoo xarit dañoo xaritoo kii bu amee jafe-jafe bu ko jàmbati kii mu fajal ko ko boo déggee ñu ne kii ak kii kii soppeeku kii la dafay am yéene ci moom yéene ko jàmm maanaam def ko comme boppam lépp lu mu manqué mu taxaw ci bu dee tawat la mu taxaw ci na ko noonu ñoom ñaar sëñ Tuubaa ak yàlla dafa dañoo dem ba jaxasoo noonu lañu ñu ñoom ñaar lépp lu sëñ bi bëgg yàlla jox ko ko waaye nag dafa nekkaloon yàlla ba taxoon lislaam ci géej gi nga xam ne lislaam bu muy dem dafa yooxoon dafa yooxoon amul kenn ku ko sàmm fii waaye nag mu ne nusaa lil islam inda qurbati la dal yi mu ne qurbati nusaa li nooru lisaana wal kitaab asmaana sunnatil da ahlil kitaab kon l'islam daf moo njëkk a yooxu suñu borom jël ko nag teg ko ci loxo Sëriñ tubaa di ko bambaani tey ba ñëpp mën koo jëriñoo nga xam ne bu doon fas woo xam ne dafa rëcc ci Sëriñ ndaw ba jàpp ko yeew ko di ko di ko jox am ngooñ bam rek ba ñëpp mën ci jëriñu kum neex takk dem tabarikalla noonu rek nga koy fiidaale kon nag mu ne xal bi sama xol safa set na wicc mooy sell na bi kaw nira bi ngir nekkuluk sama borom gi ma nekkal te lii di sama xarit si bii di sama soppe ndax ku am xarit wala nga am soppe wax dëgg yàlla kay boo ko nekkalee kay war na laa nekkal bu fekkee dëgg la waaye nag wa jaala def na moom yàlla lii ñal ma ku lii sama lu néew lu ne mu jël ko nag léegi kusaran muy lu bëri nga xam ne sama lu tuut lu ne léegi nag suñu borom yemut ci bëril ko waaye da ko bëril ba noppi def ko muy barke nag nga xam ne suñu tubaab léppam barke la léppam njëriñ la mu ne wajjaha jëmale na moom yàlla lii ñeel ma xalaawata neexitu daaray ni adduna ak alaxira maanaam adduna ak alaxira seenum neexit yëpp yàlla jox na ma ko waaw seenum neexit yëpp mu ngi ci man Ahmadou Bamba moo tax mu ne wajjaha jëmale na lii ñeel ma moom yàlla ci man xalaawata neexit neexitu daaray ni adduna adduna ak alaxira te wa fiihima ci ak ci adduna ak alaxira jaal la nii ci la ma def moom yàlla jaaray ni may dëkkaaleem ci adduna ak alaxira may dëkkaaleem ci àdduna ak alaxira loolu yàgg na ko jaaral bat yi ajiman di kaw ni nee na dëkk dëkk gi ma dëkkaaleeg yàlla nee na loolu mbindeef yi cooy rek lañ ci xam waaye ump na leen mbindeef yëpp ump na leen moo tax ma ne wa fiihima te ci àdduna ak alaxira yëpp la jaal la ni ci la ma def moom yàlla jaaree ni may dëkkaaleem àdduna ak alaxira mu ne yàlla nafaani jëriñ na ma bi ma badaa ci lu feeñ wamaxtafa ak ci lu nëbb maanaam yàlla njëriñam yi ma jëriñ kooku moom ci lu feeñ jëriñam ci lu feeñ ak ci lu nëbbu lu feeñ li mooy lu ñuy teg suñu bët di ko gis ñun ñëpp nga xam ne kenn du ci sàkk ne lii li Tuubaa liggéey woon suñu borom jox ko jumaa ji ak ña aju mboolem mboolem la ak école yi barab yi nga xam ne dañ koo tabax ngir sëñ bi tax ak ngeen ñi fi sàkku xam-xam di fa jaamoo yàlla ngir dundal fa diine lislaam neen nag loolu mooy barab yi nga xam ne tabaarikalla loolu bokk na ci jëriñ gi ma ko yàlla jëriñee waaye mu doon loo xam ne dafa feeñ ñëpp di ci teg seen bët waaye am na ci loo xam ne moom dafa nëbbu kenn du ko xam fii lañ koy xam tabarkalla am na loo xam ne nag sama diggante sama borom loolu moom kenn du ko xam sax yowmal xiyaam kon nag nafa andi jëriñ na ma bi ma badaa ci lu feeñ wa maxtafa ak ndax ma dalee la bu bin maa lil bariyati yëdin wa maa la xëyri laay yàlla jox na loo xam ne bindeef yëpp teg nañ ci na nañ waaye am na ci loo xam ne kenn du ci teg sa bët te lépp di ay mbégte ak ay xéwal moo tax mu ne nafaa ni jëriñ na ma bi maa badaa ci lu feeñ wa maxtafa ak ci lu nëbbu wa kaw nu hoo ak nekk la moom yàlla lii ñeel ma bi mun naa yegg samay mbibét yi may mbibét nee na maxtafa loolu kat nëbbuwul kenn nëbbuwul nee yàlla maanaam sama mbibét yi may mbibét waaye saa yi ma mbibétee rek la ma bëggoon ca mbibét ya yàlla nekkal ma ca defal ma ko nee na loolee nëbbuwul ndax ku xool xasida yi rek ni muy sante boromam ak nu nga xamee tegginug ñaan ak bala yëkkati xalimaam bi di ñaan yàlla suñu borom nangul ko ko kon kookee ku nekk xam ne ne mbébétam yépp yàlla jox ma ko ko te loolu nëbbuun bi ne fi teg nañ ci seen bët moo tax mu ne wa kawnoo ak nekk la moom yàlla lii ñeel ma bi mu naay samay mbébét yi ma bëgg maxtafaa nee na nëbbuun ñëpp teg nañ ci seen bët comme lii la nag mu ne farix ko ay waay waay waay maa ngi bégee nag gaa yi moom xaw ma kan lañuy ñuy waaye Sëñ Tuubaa nee na farixtu maa ngi bégee billaay yàlla dafa diis ci baatab tasu maa ngi bégee farixtu maa ngi bégee gaa yi moom léeg-léeg nga gis ñuy bégee ay xéewalu adduna tabarkalla ay pañeti adduna foxom adduna loolu rek la ñuy bégee loolu rek moo leen jaral waaye sëñ Tuubaa neen bàyyi naa leen foo jëm mu ne farixtu maa ngi bégee billaahi ci yàlla alkarim muy aji tedd wa rasul ak yonentu nee na man ñaar yi rek laa am objectif di leen bégee farixtu maa ngi bégee billaahi ci yàlla alkarim muy aji tedd wa rasul ak yonent bi waaye nag maa ngi déggee wëys bi ak kuréelam ba ma malaayika yi wëllu yi xutbu yi abdal yi nujubaaw yi nuqubaaw yi ñëpp ñu ngi ci bii sëñ Tuubaa nee ne bi ma déggee yàlla ba noppi teg ci yonent bi kuréelam ba laa ci teg mboolem ñi nga xam ne kuréel bi yàlla bi rek lañ tabarkalla ñëpp nga xam ne dañuy duggu ñëpp kuréel bi jublu saaba yi rek waaye ñëpp dañuy dugg ci biir ndax ñaari kuréel la am kuréelu seytaane ak kuréelu euh, yonent humul muflihoon ala inna hizba saytaani humul xaasiroon kon noonu rek la demee moo maa ngi bëggee yàlla mi nga xam ne mooy aji tedd ji waaye maa ngi bëggee yonent bi waaye di bëggee kuréelam bi yëpp waaye nag wustu laq naa minhu ca yàlla xayra sol gën ci pajuk aajo ci yàlla la ma doon wut yëpp la ma bëggoon yëpp la ma doon ñaan yàlla yëpp la ma doon laaj yàlla yëpp nee na wustu laq naa wustu am naa wustu laq naa minhu ci yàlla xayra sol gën ci pajuk aajo sama pajuk aajo yëpp jot naa ko laq naa ko am naa ko